ma amoon tolof tolof. Mm-hmm. ba ñu arrêté la. Mm-hmm. mais ma gis nit ñi sotle la nattu bi. Mm-hmm. ndax man loolu rek laa mën a jàpp. ndax booba dafa mel ni yow rek lañu ñu arrêté. boo ubbi ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne nañ ko nañ ko bàyyi. ba nga génnee it nga wax wax boo xamante ni dawloo na yaram yu bëree bëri ci bébé Diène. ma bëgg a dellu si waat ci parcours boobu tuuti xam naa ne moom lañuy ñuy jeexale suñu émission. waaw Père Max parcours boobu. Mhm. natt la bu agsi woon. Mhm. ci Baye bi. Mhm. natt la bu agsi woon ci jaam bi. ñu dund ko. ci fierte dund ko ci ngor. parce que dem di tëdd loo defut yëgoo tinoo moom. boo dee as gor du feeñ ci yow. ah mu nekk loo xam ne yàqaluñu tam ci suñu carrière dara. ndax ci sunu biir carrière la ñu dabee. te bi ñu fa demee jàngee nañ fa luy tax ñu gën a mun a prouver carrière bi ndax foofu université la dama fa jàngi ji woon ci li ma jàpp parce que li gars yi wax day bëri version yu bëri te bu nekk da nga dañ la koy laaj Bébé nag ak Kaaw Cissé ñoo tax ba tey ma jàppee sama bopp détenu père waaw dama jàpp ni libre guma ba léegi kon ñoom ñu ngi ci biir Bébé Diène ak Kaaw Cissé samay nawlay mbër lañ xaw ma bundu kër bébé Diène xaw ma bundu kër Kaaw Cissé waaye wutalewu ma leen ak Basiru bi topp ci man barke alxuraan damay am ci ñoom yërmande ba damay tiim lekk su nekkee lekk gu neex ma su may jooy dama ko tay ndax damay xam ne ñoom lekkuñu ko kon ñooñu boo ko dundeek ñoom parce que loo dundul noo ko xam te kaso dafa doy waar dafa doy waar day xeeb loos as gor day wàññi maqaama day suul ba dañ lay xoolee beneen identification bu wuuteeg li nga def te per sàcc yu mag yéen ci réew mi kenn dàppu leen raykatu nit yu mag yéen ci dëkk bi kenn jàpp leen tekkatu dil yu mag yéen ci dëkk bi kenn jàpp leen mais man dëgg ji may wax moo déranger ñenn ñi ba pàkk bu nekk ñu ngi ma koy tegal waaye nag ragaluma kaso ndax jàmbaar la lu ma dëgg di su dee dëgg ma yóbbu kaso <laughs> dimanche bi jot mun naa faa dem amul problème parce que eh, li tax leeral bi am solo mm-hmm. nit ñi dañ ne mbëri dañu yàkkamti ñàkk ko combat tax mu dugg du affaire phobie lañ doon wax. père Max Mbargane. Uh-huh. billaahi. Mm-hmm. wallaahi. Mm-hmm. wataalaahi parce que bëgguma sax justifié wu. Mm-hmm. ak ma ñàkk samay bakkandu doom. bu dee phobie lañ ma jàppee li may wut ci àdduna yàlla bu ci yàlla def dara. père dañ maa tuumaal ba tuumaal ma ni sama jabar daa daw ak maletu xaalis. xam nga boo gisee moom mujjee ko léeg-léeg jiiñ la loo deful arrêté la ci. ndax kaso du ku def rek ka fay dem nattu la àdduna lépp sotti na ndax daa daay am nañ am na période boo xam ne bu ñu ci tolloo ci la yàlla di bind ñi ñi war a am wërsëg ñi war a am nattu ak ñi war a am faatu ñi war a faatu ba am na nit yàlla xam ne buñ tollee ci bés bërëb bés saasoo sax dañ koy woor kon destin la nattu la mënta ñàkk mais nag ku laalul weddi du ragal dindi tuuma la taxaw leeral ko ba àdduna yëpp xam ne lii amul te même bu amoon sax nit mën naa juum du tax ñu rejeté la foofu message bi may jàllale mooy ñi am ay mbokk ñu arrêté leen te ñu def bu ñu leen bàyyi suñu leen bàyyi ñu ngi leen di sànq day tax ñu continuer ci naka sa dul noonu mais nit bu defee nga dem taxaw ko dana tax même bu defee bu gën bu jógee ci loolu dootu def. gis nga justice su Sénégal père. Mhm. am na solo torop. Mhm. mais gis nga feeg bàyyi wuñ jàpp nit doo ko seeti lu mu defi dinañ dëkk ci nit ak ndax dinañ tëj nit ay at relaxé ko dinañ tëj nit ay at jox ko non lieu ndax lan da koo tëj ba pare doo ko xooli lu mu def man lu ne bindal nañ ma ko man tey bu ma génnoon su ma neexee damay porter plainte far diffamation ndax nag ñu ñi ma juumloo ci sama affaire dañoo bari lu soleil bu ne lu ne lañ bind sama soleil bi lu ne barke alxuraan te liñ ma bindal dara amu ci ñañ ma booleel dugal tuumaal ma ak li am nii la def liñ ma liñ ma liñ ma waxal sax naa muy ay faux billets yooyu nii la demee man ki ma entamé mooy commandant bi intermédiaire u ci luñ doon jaayante lan ma doon woo du ma toog sax ci télé di justifié wu day niru leneen li ma fa avant àgg yow sama sama egg ak nit mais bu dee kee faux billet lañ ma jàppee père man tëdd naa telaw taw di taw sama kaw ba sëbét xaw fu ma dëkk waaw père sama der du bënn du foofu per man naa li nit ñi melta am am mm-hmm. naaw fit mm-hmm. per mais am na lu may jombale sama bopp ndax suma wajuru sell wa waaw jomb jomb dafa am solo per aw lu may ragal waaye am naa lu may jomb waaw ba muy metti mëna lu ma sama bopp dara mm-hmm. jaayuma sama ngor dinaa dem ba Serigne tuubaat dimbali ma réew mu mbër bëgg a dem ma mën faa dem àdduna xam ma may jaay sama ngor ci lu ñàkk fayda ndax ndax loolu xel nangu na ko waaye sénégalais li may wax journaliste yi nañ bàyyi rey nit muy dund te gor boo ko tuumaalee rey nga ko. waaw yaaw jaal dañ ko arrêté wul dëgguma la mais fan yële tudd nañ lu mel noonu ba ne arrêté nañ ko euh, ci groupe ñum àndoon ak ñuy def agr ñuy agressé ba mi ngi ñuy arrêté ma toogam ñu woo ma benn doomu Paa Yéeri moo ma wo Sitaal Paa Yéeri Jaxate. Mm-hmm. Euh, barki démb sax demoon naa fa seeti leen. Euh, ndax ba léegi man maa ngi feddali kaloore googu. Sitaal moom moo ne ma. grand ma ne naa mu ne ma yaaw jaal lu ko dal ma ne ko non dara dal ko mu ne ma yaaw jaal dégg naa da ànd ak groupe yu doon agressé ba mi ngi arrêté. ma ne ko bay ma tuuti. yaaw bokk na ci mbër yi ma gën a yab moom dafa ma yab sax fu ma fekk dafa may poje sànni ma kurpeñ naan ma du ma sa morom ak xaaral ma woo ko ma woo yaa ne ko yaaw na nga def mu ne sa waa ne ko li ma lay dëggal mu ne ma père ñu ngi may woo fu ne mais dara amu ci ma woowaat si daal ne ko. loolu amul kon moo lay wan yu mel noonu euh, bëri nañu tuumaal koo xam ne deful du ma ne nag du ma ne ñëpp defuñu am nañu def mais man na ma jàppee mooy même ki def bu ko ay mbokkam abandonné loolu tey tax mu continuer nit yàgg naa def te mujj doon euh, ab sang waaw père est-ce xam nga ni kaso mhm. Mhm. bokkoon na ci lu ma gën a ragal suma àdduna mhm. ba tax ma doon mooy yoo tooñ. waaw waaye bokkutul lu may ragal ci sama àdduna fi mu toll nii. Mm. kaso day yàq nit dañu day defar nit gawuma loolu. Mm. kaso day yàq nit père. Mm-hmm. ndax di nga fa xamee loo warta xam. Mm. di nga fa gisee loo warta gis di nga fa sañee loo warta sañ. beneen bi mooy téye nit ba yàqal ko àddunaam mooy bu génnee yaa ko bëgg dugal euh, ci régime bu bon bi. Mm-hmm. bu génnee ay moroom yëpp raw ko mu làmb dooleem dese ko bu def ñaaw teef lay gis. denc nit mun a ñàkk mais lu ñuy dencee nit nañ koy xool ba mu leer quoi dama koy ñaan nag awma xam-xam jànguma teguma ko ci lu dul waxtaane ko rek mais dama ni kaso la fa nekk lépp dafa doy waar te man yàlla dafa ma dimbali du ma ragalu kenn mais bëri na ay ayib daal ndax gis nga téeméeri nit nga bëgg leen denc ci benn néeg boo nee problème amu fa mooy yaa ngi nax nit ñi. ndax ku nekk ak jikkoom. waa loolu de gis naa ONG yi di ci waxtaan lu bëri bari père na ci kaso lépp waxuñu ko. Mhm. Mhm. man ragal ma kaso. Mhm. déedéet. waaye ragal naa ñu ni ma yaa tooñ wala yaa def. ndax damay setal sama sama soxna. setal samay doom setal képp ku ma sopp ci lu bon ñaawteef. ah non mun nañ maa jiiñ lu leen neex nag ndax dëgg ji may wax da leen a dëgg na comme déranger. maalikul mulk ngay jàkkaarlool moom mi bëgg dëgg ba ni xulun ak wala ukaana mu dëgg donte dee dafa taxaw kon suñuy jéem a wax ak dëgg mais Sénégal boo waxee dëgg ñu woo la ne la dëgg ci sa tànk nga dëggu bay dëggal ñu dëggate la boo génnee sa wax dara benn kilifa lay woo na la ah génneel ci Max Margan yaa ngi dugg ci loo xam pour kan pour lan waa dogguma la ndax man gis naa bi may wax bi covid bi ñëwee maanaam bu bi jógee ne l'heure est grave xanaa ci ñoom xanaa ci mbëri la grave ak acteur làmb ndax yow mi naan l'heure est grave weeru dee nga fayu am na ñu ne dama contre état tey biir ubbee làmb mbëri di ci farlu yóbbu yor seen njaboot da ngaa déggati ma wax ko. déedéet ma mais nag dama leen a da nga ñoo xam li ngeen bàyyi. Mm-hmm. ngir ter ci seen i way jur. dëgg la kon nag bu ci bu buñ ko laa buñ laalee secteur boobu danaa ci wax. AVC yi ngay gis kaso lay génne góor jigéen yi ngay gis kaso lay génne parce que tëddin ba xat na mitti na toogaay ba yàgg na nerf sciatique yi fa lay jógee parce que nga tëj nit amul benn loo ko mën a apporter lu dul tëj tëjji tëj tëjji benn temps bu ndaw la am ci biti tëjaat tëdd ak toog rek la mën ak dancaloo loo defee ni munu faa xew da ngay wax nit ñi la neex ñun buñ ñu nax nañ waxante li fi neex am na ñu ne dem maa ngi ñaan ci dooley sans borom. Mhm. bébé jéen ak Kaaw Cissé yàlla na sans borom doon seen wéttal ba ñu gaaw génn. Mhm. ndax mus naa leen wax ni mbër yu mag yëpp dama leen a mere. Mhm. man musuma jàll mbër bu dee mus naa ko wax tamit wala ma def ko nga nga génni ma ci. waaye bébé jéen ak Kaaw Cissé tax na ma mere mbër yu mag yi ba koo ma ci laaj ci combat am du ci wax. ndax nag dama gisut ñu wax ci nuñ ci war a waxee. donte mënuñ leen a génne far force na leen jaral bu kàddu yi Dakar naasee ñuy wax ak a parce que kenn ku ci nekk am na kilifa gu nekk sa wet te réew mi léegi loxo bu gudd fi dox dangay rey nit ñu mhm. wooteel la ca kaw duñ la tëj mhm. nga jël téléphone bu jàmbur buy jar mille francs ñu tëj la ci deux ans ku ma mu am ndey ak ku ma amul ndey buy dox ci réew mi la ñu war a baax te boo waxee dëgg jooj ñu ne booy bi xaaral créé benn boucan dugal la ci mhm. def la pass in bi yaay tëdd film yow man ñañ ma booleel problème ñoom moom seen problème ñu booleel ma sax man lañ mm. def pass in te ñooñu xaw ma leen xamuñu ma aw ma seen numéro amuñ sama numéro génn naa Malika sama bopp koñ moo waraloon ma def ci sama taalif bu rëy boobu bu rëy boobu noonu ma def. non lii am na solo parce que. père bi ñu may jàpp maa ngi génnee sama mm-hmm. kër xontu samay xar ak samay xaj barke alxuraan. Mm-hmm. li ma lay wax nii musuma wax ci la li histoire bi waat mais. Mm-hmm. dama naa ne bii mooy sama dernier wax ci sama problème boobu bii. waaw man boo gisee nag euh, ma woo la. c'était juste daf ma marqué. ndax beneen bi am na lu ñu seq lépp rafet. dëgg la ma xam la sa cër. Mm-hmm. ma xam sax taalibe. ndeysaan moo tax man ba ma déggee loolu. Mm-hmm. ma ne ah loolu bu dee am na juum na wala juumloo nañ ko. Mm-hmm. kon taxaw bi nee naa la weddi du ragal dindi tuuma la. dëgg la te dafa am solo te it am na kàddu yu dëgg yoo xam ne bu jógee ci xol noo ci xol rek lay dellu. dëgg la moo tax loolu dafa am solo. moo tax nag ma njëkk ci yow yaay kan ak sa taxawaay ci làmb bañ xam ne kii fi toog champion la. kii toog dara jomb ko ci làmb mhm. ma dugg a ñëw nag ci li nga xamante ni bëri ñox rek bu ñu la wooyee rek dañuy jubali foofa direct noonu man du man la mm. sa jëmm ak sa parcours mhm. ak li nga def ci làmb ak yaa yaay kan mhm. loolu intéressé na ndax ci loolu laa xam ci yow dëgg la man fu ma toog damay jël sama borom doyloo ndax man sëñ Tuubaa rek laa gëm dëgg la sëñ Abdul Karim Mbàkke sama wasila Cheikh Ibrahima ñu doy am na lool des koy misaal waaye am na loolu làmmiñ du ko laal biñ may jàpp carax laa sol ak ay kilo ku nekk ci dil kay xanaa di nga waaj. man bu ma waajee ni mbër di waajee ba génn. te fukki ma munuñ maa téye. li ma lay wax yaa ma ko gën a xam jaar nga ci mbër. kon dafa am lool ñun doxuñu ci ñun doxuñ ci lu lëndëm doxuñ ci lu jubadi. sàccuñu fenuñu tuxuñu géezuñu naanuñu. làmb lañ yaakaar sport lañu yaakaar sunu njaboot yaakaar ñu. liñ yaakaar ñeneen yaakaar nañ ci ñun dara. nañ ñu sauver dimbali ñu boole ñu ci nit ñi. bool ñu ci mbër yi ñu egg fi ñu war a egg en que yenn décision yi loolu jàpp naa ni natt bu agsi woon la dund naa ko mm-hmm. tooñ nañ ma nag ba ci mm-hmm. kanamu yàlla mm-hmm. waaye jéggal naa ñëpp et puis na ma ñëpp jéggal li tax may jéggalwaat ñëpp mooy am na ñu bari maa leen juumloo am ñu bari dal nañ am lu la metti woon ngir këñ bëgg moom lañ ni moo def nangam ñooñu laay jéggalu ñi nga xam ne ñoo ma yóbbee loolu waxal ma jëfal ma bal naa ñëpp ngir jëmi Serigne Touba dëgg la topp ma kenn leen waaye lii ma la wax noonu la demee sama kër laa yéeg xontu samay xar ba pare dem ci tali bi sama dooma yor sama téléphone maman sey sama bundu kër ma eggee ci tali bi leen ma arrêté ni ma naa leen wan benn sëriñ bu ñuy wax joru tudd tur man leen bu ngeen mënee seen liggéey dem leen ngeen doxal ko seen bopp man néew ma pour wan kenn ay sëriñ ñu jël ma yóbbu kër ma saar ñu laajaat ma ma jox leen numéro ñu bàyyi ma dem wala naa ma ki naa ma leen dem leen ngeen doxi seen loolu hmm. commandant bi ci boppam laaj ma ni ma doo wax nga ne ma ne ko lu may wax ak ndax dama leen war a jox numéro jàmbur ñu tàppeel ma li leen neex boole ma ci dossier yi bi ma xëyee dégg ñu naan foo biyee laajal giri Bordeaux ma ñëwoon taxaw ma moo mujj di ma calmer xeetu saaga bu ne saaga naa leen ko ndax xam nañ ne dañ maa tooñ ndax bindal nañ ma loo xam ne fekkuñ dara ci sama loxo wallahi al azim ñañ ma jàppandool sa fekkuñ ci ñoom dara ci ay faux billets ñu dem ñu laaj leen ñoo ñu ne xamuñu ma te wallaahi noonu la demee xaw ma leen xamuñu ma mais comme dëgg ji xam nga politiciens yi moom boo dee wax dëgg jëmale leen ko. waaw moom ñu def ay pexe. ni booy bi daf ñuy déranger. ñu am bët buñ la xool. merci beaucoup léegi nag bu ñu demee gërëse commandant yi moo tax commandant yi su bëri ñu ngi yàq carrière doomu jàmbur yi. nañ ma baal ci ñi ma ko war a wax. Mm-hmm. ndax am na ñoo xam ne fulla rek la ñuy dox. mais am na ñoo xam dañuy dañuy jël corrompi. Mm-hmm. li tax du mu bëgg di débat ci lii damay dem ba si damay tàng damay. directement maam Moussa Ka ji day ñëw ndax man sëtu maam Moussa Ka laa. ku dul sëñ Tuubaa doyuma. mais. Mhm. dañ ma tooñ père. Mhm. mais baal naa ñëpp. Mhm. et puis di baalu ñëpp. ndax nag su ma baalee ñëpp sama bopp laa baal su ma baaloo ñëpp it sama bopp laa baalu. ndax ci biir Sénégal bi la da sañu maa toog ci der di jëw yàpp. te ngan gu yàq gu nga defaru ko. wallaay dëgg la. père yàlla na jàmm yàgg Sénégal. amiin dañ bàyyi tuumaalus gor suy dox. wallaay gor su set wecc la gor su set wecc la. Ah, loolu am na solo jàngat bu ñu toon ñàkk kon appel bi nañu ko bàyyi xel nañu bàyyi xel euh, Kaaw Cissé ak Bébé Diène. billaahi. Euh, Kaaw Cissé sax ndeysaan maa ngi romb keroog benn xale mu ne ma père del wax ci Kaaw ma ne ko maa ngi ciy wax wax ci Bébé Diène. ndeysaan Bébé Diène nag la ma waxoon rek ci lay dellu si waat dama kontaan lool ci waa kër écris si mujjun bi ñoom Kayre. Mm-hmm. ndax dama gis biñ ko arrêté ñu ne moment bi ñu ngi ne ci wetam di ko jàppale di ko épauler pour mu génn. Mm-hmm. su génnee nag ñu toog waxtaan ñu waxtaan. ndax yëfi xale la rek hmm. waaye moom champion la te mu war na cee maanaam teraanga bu ne hmm. kon loolu dama dama dama koy rafetlu ndax man gis naa champion boo xamante ne nii mbërëm dafa am problème ci biir problème bi mu am la toog ci média bi ne dàq naa ko sama écurie hmm. te loolu man rafetlu ma ko bëgguma tudd tur mais daal moment bi nga am ay jafe-jafe nga xam ne fa nga dugg ñu ci bitti bitti ñoo la war a taxaw pour génne la ak ah, kooku nag damay bëgg ñu ndax na ci wet épaulé la euh, lu yan kàddu nga ciy wax waaw li tax nga wax loolu mu koy dëggal mooy. ki ne ci biir. génn réew mi. ba lu fi xew dañ la ko nettali boo ko dimbalee yàllaa lay fay. dëgg la te ku ne ci kaso génn nga réew. ndax lu fi xew dañ laa nettali. lépp lu bon dañ la koy tere doo gis jigéen doo gis xaalis xaalis bi la Père Max di dugalal sax. pour nga mën a am crédit loo lekk këyit lañ lay indil fiis mais doo ko teg bët. doguma la doguma la mais dafa am benn waaye bu ne ma ragalu ma sax kaso. mais biñ génnee ba 6 heures jot. ñu ñu rang pour dem tëddi taman dama daan ci samay farata sama njaboot ëmb ma ma xool ba ñëpp tëdd ma doog a tëj ne na booba nag jooy na waaw. dëgg la man de kaso. Mhm, mhm. bi may dugg jooyu ma. Mhm. ñaari jooy laa jooy ci kaso. wala ñett. te ñetteel bi damaa jooy tuubaat. mais ñaari maa ngi koy jooy ba tey. faralaguma rankoñ yooyu. bi may tuub nag mooy bi sama jabar bi ñu ne ma am na doom mu fanaan doom ji dellu damaa jooy bu pare tuub ci suñu borom ma ne yàllaa ko indi moo ko delloo may jooy loolu xanaa dama fàtt ni Mouhamed lañ ma tuddee yàlla yow maa ngi lay jégal yow yàlla loolu mm-hmm. mais yeneen ñaari ba tey maa ngi koy jooy benn bi mooy jour màggal ak la may sasoo waaw ñu ma nekk kaso mm-hmm. ak ni ma mel ak sëñ Touba fu ma fekk ci àdduna ma bàyyee ko fa ñëw mm-hmm. ma nekk biir Dakar te maa dem tuubaa ma defe ni fa lay yem ñu tagal ñu ceebu yàpp boo xam ne mu ngi noonu ngoon gi ñu jox ñu soom bi ma ne ah àddunaa ngi nii oh mu metti ci man parce que xam naa sama digg ak Sëñ Tuubaa ak màggal la may sasoo beneen bi bi ma joxee sama saak ma gàccaayoo ko war a génn génnaale ñetti kàddu te ñaari jëm kaw muy sama kàddu libre na waaye kàddu kaw si se kàddu bébé jën génnaale naa ko damaa jooy ndax ma génn ngelaw li upp ma ma xam ne lu jàmm-jàmm ko gën mm-hmm. ma ñeewante leen ñaari jooy yooyu laa jooy mm-hmm. ñetteel bi mooy bi ma la wax bi sama doom faatoo mm-hmm. sama ginnaaw ma jooy tuubaat waaw à part bu dul loolu dara méttiwuma lu dul di ñaanal bébé jéen ak kaaw siisa ak détenu yi fan ne yëpp sans borom def ñu génn ak képp kuy njabootu détenu nañuy bàyyi détenu yi xel te xam ni li leen ci gaa yi di wax ak li am dafa wuute lekk ga doyu fa baaxu fa euh, kon nañ leen di defalal lekk di leen ko mhm. yóbbul di mhm. leen nemmi ko di leen jàppale mhm. waxuma ko pour dara nag dama koo wax ngir dama koo dund su ma ko dund loon du ma ko wax thank you